teve no Putin Saliou Touré sunu bayu bop Serigne Saliou Mbacke moo ko yebal leg pour mu tewal ko mu melni kon daanaka loolu la amoon lu nuy jottali keneen ku déggul sa tur nga xam ni liy jariñ nekkul ci ñu tudd sa tur wala liy jariñ mi ngi ci moom sëriñ bi mu bàyyi la xel ci wàllu ñaan mu mel ni kon fa tabarakallahu لسرين مصطفى وحلق دين سك دفاك نجني أدنى دفا أم كنوكا جانجل الأخيرة دفا أم كنوكا جانجل تمودي يننتبي صلى الله عليه وسلم te daan na def bu dee tëdd wax yàlla ni ko maa ngi lay ñaan ci sa mbaax ak ci sa coobare nga may ma ma yeewu ak bakkan bu ca yàlla àndeek moom may ko mu yeewu ak bakkan bu yeewoo ba samp tànkam dana wax yàlla ni ko maa ngi lay ñaan ci sa mbaax ak sa coobare nga may ma ma yendu ak bakkan euh, nañu tëye note yi parce que Serigne Cheikh nee na wax du bët waaye dafay fattu euh, euh, tabaarakallaahu ñëpp yàlla gis na leen moom rek moo am solo waaye ba tey eh, sunu eh, mbokk taalibe la eh, dana nuy dimbali mu di la directeur général bu chemin de fer waaw ñu sant ko nag ci taxawaayam mu mel ni loolu bu ko yonent bi day jëfandikoo dafa am lu mu bëgg jàngal te mooy sago ndax won na yàlla ni ko àdduna bi danga ma ci programme waaye moomu ma ko te li mu daan ñaan yàlla yeewoog bakkan ak yendoog bakkan bëgg a dund taxul woon waaye mission bi yàlla gàll ci mbaggam moom la bëggoon yàlla may ko mu yóbbu ko fa mu bëgg mu àgg li ciy preuve mooy keroog ba ko yàlla ne jërëjëf sa mission jeex na loo bëgg ma defal la ko daf ko ni ma fekk si la pour won la ni dund taxul woon mu di ko ñaan mu mel ni kooku côté adduna la ak côté àllaaxira fa la nu moom yonent waaye bu dee ci kaadaru réew mi ñi nu jàngal réew mi ku leen gën a xam réew mi nekku fi kii Cheikh Alhaj Malick la koy wax kii Cheikh Ahmed Bamba la koy wax ku leen gën a xam réew mi nekkul ci biir réew mi ndax jàng nañu ko bind nañu ci tënk nañu ko sànni nu ci benn baat mu doy suñu dund yépp Sëriñ Tuubaa nee na ku mën a wottu ku mën a wottu boroom gémmiñ yu xóot yi te seen yuur tuuti te duñu noppi nee na nga wattu leen loo mën Cheikh El Hadj ni am na ñoo xam ni mënuñu ma tax a teg ci sama sàkket ndax xaw ma bu ma ko bëggee takkaat dinañ ma jàppale walla déet sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu wax ni réew mi li ci ëpp ay nagi njengal lañu nagu njëngal bi jiitu bu fëxee yi ci gannaawam yépp fëx topp ko bu dawee ba àkk gestu ni leen lu ngeen di daw ñu ni ko looy daw pour wan la ni réew boo ko xasee ba xam dana bari yu ñu duufal te daf lay ruusloo waaw ndax lenn rekk mën a am yàlla weddi boppam te ba ba àddunay tukki lu ko def waaw inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxsanuun yàlla nee ñi ma tëyeel seen cummikaay nee kuy paniqué nekku ca ñi ma tëyeel seen cummikaay la wax waxul ñi wax ni yàlla leen tëyeel seen cummikaay nee na kuy paniqué nekkul ci ñi ma tëyeel seen cummikaay parce que panique dëkkul kër yàlla kër cheytaane la dëkk alladina amanu wattaqu ñi nga xam ni ku dul man feesul seen bët yàlla nee na ñoom rekk la mën a compter mu mel ni kon et eh, Serigne Moustapha am na lum ci junj mooy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ba mu dee moom ba léegi ci tuuma lay dund. dafa am lu mu waxoon nag dafa wax ni tuuma kàccoor moomu ko goro ko moom nattu yéeféer moomu ko jullite ko moom mu mel ni jamono yi coow dafa xaw bare ci position coow li bare ci moom mais pour couper court dama leen di wax ni Serigne Babacar Sy mooy sunu waajur

amul ben rakam bu mu bokal Cheikh Al Hadj Malick bu soxna Astu malik ak soxna Khady malik te ñoo bokk soxna Roqee Ndiaye ñom ñe ñom rek ñu assister mais est-ce que dégg ngeen ñu xul ko fen mais xam nga lu tax jooyuñu ko fen dafa am lo xamni ku ca yàlla programmer alam yajidka yatiman fa aawaaja ku ci yàlla programme dootoo nekk orphelin ba faw bi ci des mooy Serigne Cheikh Tidiane Sy du semer confusion mënu ko ku nekk ak la la yàlla binde parce que am na confusion boo xam ni buñ ko ca déggoon rus ba faw et pourtant Serigne Babacar Sy kenn mënul woon obtenir ci moom jàmm dox digganteem ak rakkam yi dañu ko bàyyee première réconciliation bi ñu tenté kan moo ko tenté Alaaji Ousmane Kan moo jóge Kaolack ñëw fanaan ci waawoon wax Serigne Cheikh ni ko mënatuma toog te sa papp jubóowul ak rakkam yi mu ni ko li tax ma di ko dox moo di bu fi Alaaji Abdou Kan nekkoon ni ma xame mu gëme ko Maodo soppe ko Maodo kon mooy dox loolu comme nekku fi nag ma di la ñaan ñu ànd dem ci sa papa ñu bokk ci waxtaan mooy premier réconciliation bi nu def diggante Serigne Babacar si ak rakkam yi Serigne Babacar si nekk fi dañu wax ni problème politique a leen boole woon diggante Lamine Gueye ak Senghor c'est faux problème ba moo jiitu suñu judd ñun ñi fi toog ñëpp bu nu yàq Lamine Gueye bu nu yàq Senghor doonu ñu ci dara ba Alaaji Usmaan Kan demee wax ko Sëriñ Babacar Si Sëriñ Babacar Si daf ko tontu baatu doomu ndax daf ko wax ni ko fétt naa tëtt na mooy ki lànk ba desalul da Serigne Cheikh ni ko nag du nonu ni koy lay Usmaan sa talibé la sa borol la bul ko ko gàntul wax ak mom wax ak moom wax ak moom ba convaincre Serigne Babacar si motax tax mu nangu première réconciliation deuxième réconciliation parce que quelque temps après Yeshua dafa fecceekuwaat deuxième réconciliation ku ko dox si Seydou Ndaw bu avec ak le gouverneur Goujon ñoo ñëw jaar ci Serigne Cheikh ñu ko doon ñëw pour lu jubale sa papa ak rakkam Serigne Babacar ni mënu ko tout court mënu

troisième réconciliation parce que dañu dem touti affaire ba feccee troisième réconciliation bi kan moko ko dox Chérif Habib mo jógee face, gis nga Serigne Baba Sy biñu Cheikh Ahmed Tijani mi sëriñam ñi mu jur ñepp bu nu daje woon tase ci kanamam du len falé parce que xam na ni cheikh a leen jur waaye moo doon cheikh gis nga pouvoir boobu mu amee woon waxuma waxuma pouvoir kese kese pouvoir spirituel pouvoir mystique bi mu amee woon mais daan nga weranteeg moom ñëw taxaw ci kanamam ni ko nangam xew na mu ni la gëwuma ni noonu la demee nga ni ko ah kay jàng na ko ci journal deg na ko ci radio mune le cheikh waxuma lol ba mune le la cheikh alhaaj omar waxuma lol balay am une heure de temps la nga waxoon yow fete bor la mu waxoon taxaw ba shérif habib ñewé waxtan ak sëriñ cheikh wax ko liko ko jóge face Eh, sëriñ Cheikh ni ko góor gi tàng na waaye nañu dem essayé mais sëriñ Cheikh lan la convaincre sëriñ Babacar si daf ko wax ni ko nit du weddi boppam parce que comme nee nga Cheikh rek nga fonk njabootam jóge fas ba fii am di la ñaan si teraanga boo ko gàntalee rek dootul am fu mu féete ni ko may ko rencontre ba defe naa ni bu ñu doon tàmbali ya ca feeñ fii lañu takku tàkkusaan di fekk mais ñu wax leen ni yooyu ñetti réconciliation moo am bi Serigne Babacar Sy dee dund moom moo ko force la sëriñ Serigne Babacar Sy tëdd feebar wax ni ñi ma seqaloon àdduna te àndunu ñoom xëy na dafa am lu nu yaakaaroon jàpp ci ma nit ma am lu ma yaakaar jàpp ci ba yëg naa ni maa ngi ci tànki wuy ji sama borom kon ñoom lañu yaakaaroon nañu ca jàpp li ma yaakaar ma jàpp ci man Babacar bu ñu tasee ci kanamu Maodo lu ñuy réglé ñu réglé ko lii la Cheikh Al Khalifa wax dooru dugg bàmbeel mais lan mooy tooram dafa fekk nag réew mi euh, atte lu ñu xamul mën nañu ko atte lu ñu xamul mën nañu ko ba léeg-léeg nga dégg kilifa dugg ca te la ci kilifa mu atte lu mu maîtriser wul warul Serigne Babacar Sy dugg bàmmeel mais gis nga keroog bi mu dogee ñu nekk ca kaw balcon ba moom Serigne Cheikh mu defe ni eh, eh, góor gi ni mu fi jógee dama jaxasoo parce que sama âge taxoon mais man booba fekk na mësuma am contrat ak Serigne Babacar moom rek la mësa amal contrat waaw mu mu téye sama loxo bi ma ñëwee ba fi sëriñ kër si tëdd ma muri kanamam jël lox sama loxo teg ci jëm teg ci sama jëm sama loxo wax ma ni ma gis nga kii ma ni ko am ah, mu ni ma nañ ko denc léegi te ñëw xaar ko ci buntu kër gi bale cinq heures mu fekkaat nu mais juróom-ñaari at yi mu am ci suuf li nu dund li ñu dund gis nga keroog ba sëriñ Babacar si génnee àdduna muy ajjuma astaxfirullah muy altine di le vingt cinq talaata àllarba alxemes ajjuma le vingt neuf lañ ñu yónnee ndaw wax ni bu benn njabootu sëriñ Babacar si julleeti ci zawiya Cheikh Al Hadj wax ni bu benn njabootu Serigne Babacar si sukkati ci rawdu Maodo pour ziar ko ñu ni nag bëccëgu keroog du paase keroog dina nu rey ñëpp taxawal li nu bëgg mais Serigne Cheikh ni mais yéen du ngeen nit jaamu yàlla jarul reyante fekk ngay am foo ko defe wax ni Serigne Babacar si fii ñu ko rob titre foncier la moo ko moom au lieu ñuy dem di xëccoo jàkkaat juma nañ ko fi tabaxal jàkkaat juma comme nee nañu bu ñu ñëwati ziyaara rawdu Maodo bu ñu ziyaara sëñ Babacar dañu ko yóbbante sunu ziyaar mu joxal nu ko Cheikh Al Hadj loo teg ci loxoom pour Maodo Maodo ji lii moo xew ku leen ko waxul lii moo xew sëriñ Babacar nag dafa am lu ko yàlla nattoo mooy la mu nattoo woon yont yàlla noox yont yàlla noox dafa jur doom yàlla ni ko sa doom di mu ni ko am ah, mu ni ko laysa min ahlika kii yaa ko jur waaye bokkul ci yow mais Serigne Babacar si ci biiri doomam am na koo xam ni bu daan wax soxla bu ko yitteel bu ñëwee mu noppi parce que nee na lu mu xam ci man dem waxi ko euh, bàyyam yu ndaw yi Serigne Babacar Seck ko wax ah, xëy nañu suba di nuyu Serigne Babacar si booba mu nga ca xaal ba sëñ Babacar si ci néeg soxna astukan génn ni ñu daan def ñun ñëpp ñu jóg pour nuyu ko sëriñ Babacar romb ni ñun ñëpp jël loxoom teg ko ca mbaggu kooka ni ko mais yow mi dul réeroog sa bàyyi ndaw ñi fu ñu toll ci pexe pour wax leen li xew parce que kër boo ko yaakaaree danga koy xam ah mais doo yaakaar kër rek te xamuloo foo teg yaakaar gi mais pour won leen euh, yii ngeen gis yépp kenn ku ne la sa responsabilité xam nañu ko gis nga keroog bi ñu ne dañuy defaral Serigne Babacar Sy juma fexe nañu ba am 53 chefs religieux du Sénégal yoo xam ni kenn ku nekk sa signature bind nga ko ci këyit wax ni Serigne Babacar Sy warul am juma engagé ca ñëy sëtu Cheikh engagé ca ñëy sëtu Cheikh Al Hadj Omarul Fouti mais gis nga góor gi ci kaw bu ñu daboon ci suñu dëkk dootuñu yëg ni moonu bind parce que ku téye rek la bëgg yàlla la wax bu ñu daboon ci sunu ci sunu yoon dootuñu yëg ni mu toll lii mooy li nga xam ni moo am. ke bindoon leetar ba tax sëriñ sa bind yàlla daf ko natt ba muy bind lettre ba ci loxo boppam la ko bindee archive yaa ngi ñu denc mu wax ni sëriñ Babacar si tabaxal ko jumaa mook tabaxal ko yéeféer ñoo yem et ci mujj dundam lu mu doon naxe nit ñi pour wan leen ni na sëriñ Babacar te dëgg maa leen ko wax bu doon dëgg ñu xam parce que fexe na ba tas këram mais tasul këram góor gi la ko intéressé woon dafa am fu mu ko kotti kotti yolli yolli ba dugal ko fa ba bët du ca tege ilal abad loolu moo ñu jox courage ñan ñoonu ci opposé wa d'abord rakkam yi wax ni warul am juma ñu teg de côté ñan ñoonu ci opposé woon la force coloniale ñu teg leen de côté ñan ñoonu ci opposé woon certains chefs religieux du ñëpp am na ci ñu ko soutenir bëtu tungoom ko ca chef religieux yi xam li xew mais xam nga lum mu wax ci Tiwaawan dafa wax ni billahi ladi laa ilaha illa huwa bu ñu leen tàggewul yàlla jumaay sëriñ Babacar dana taxaw jumaa ji am na mais gis tubaab yi ko daan topp pour di seet nan la li mu wax toll ci moom jumaa ji mu bëgg a defal sëriñ ba kër wala li wala nu mu toll ci moom gis nga ba seen enquête génne tubaab yi dañu wax ni xamuñu li muy def ñeme na ko wala déet waaye bañ ko dalee topp ba léegi muy lijjanti mbiri jumaa ji am na lu nu yëg ci moom mësul jëlal guddi gu mu seetaanul cinéma

ku jigéen koo fa fekk mu sant si jox ko ko bu dee xar noonu bu dee nag noonu bu dee fas noonu mu ni bu ngeen gisul kenn ku sant si seen mbokku taalibe mu ngeen njëkk a taseel jox leen ko àddiye ja tàllal ko loxo mu jàngal leen fatiha waaw parce ku ne ak la nga mën a évoluer waaw euh, euh, euh, climat boobu mënu ci évoluer il faut dire parce que ñun sax mënuñu fa dund ah, mënuñu ko mukk mais ba ñu demee ba mu yàgg moom moo wax ni ñaaw na ci kër gi bañ a nekk benn gannaaw Serigne Babacar Sy mu ne nañu tàntewaat ah, parce que mbaax kenn du ca tay dangay def ba ba ko yàlla yàlla dogal mu wax ca Tiwaawan euh, lu jiitu sax boobu parce que gannaaw Serigne Babacar am na ñaar yu mu def ci wàllu juboo ci kaadaru kër gi bu ci nekk ñu bëgg ko def euh, l'heure bu PSR waaw xam nga mbaam lu muy wax bu ñëwee ci teen dafay naan ba màndi bu màndee la muy njëkk naan mooy yal na teen bi sakk moom lay njëkk a ñaan du xalaat ni dana maraat nag <laughs> mu mel ni loolu mais juboo bu mujj bi bi mu jëlee engagement pour def ko ci Tiwaawan bu ñu xaajoon njabooti Serigne Babacar si ñeenti xaaj ñetti xaj yépp d'accordu ci mais moom ku wuuteeg moom ci ñun al moo tax ñu fekk si ko ci position waaw ka toog ca Ndakaaru jàpp njàmburam Alaaji usmaan Kane bokk ak soxna Asu Kane ndey ak baay faatu demu ca laajoo lu tax demu ca soxna umul xayri di sunu taawu ndey bokk ak moom ndey ak baay faatu demu ci laajoo lu tax demu ci soxna asietu bu mag bokk ak moom sëriñ Babacar faatu demu ci laajoo lu tax demu ci soxna asietu bosu boppam faatu mu wax nu ni dem len ngeen taxawe ko te wax mamam mu taxawu ko demu ci mais lu nuy laaje lu tax demul ci bu keneen mais lu tax mais ça aussi ça fait partie de la démocratie mais est-ce que yëgal nañ ko Mais waxuma yëgal ko ko parce que il y il faut le lii mooy li nga xam ni moo xew mais bala muy lay dëj yi fi am te demu ci mais Cheikh El Hadj lu tax ñu tàggee ko yaayam mu toog ba nawet ba wàcc mu door a jaale ji Maodo laa wax yaayi boppam maam Fawad faatu na ñu ñëw wax ko ko mu ni ah, dem gi day mënul nag pour le moment qul huwa bi may jàng di ko yónnee nag waxtu ko jàngee mu fekk kon naa yi ba war a lay yi mu ci xaw kenn yarul ci fayonte xam nga lu tax wa in aaqabtum fa aaqibu bi mithli ma uqibtum bi waaye wala in sabartum la huwa xeer yàlla nee na ñu tooñ leen ngeen fayu bu leen neex parce que seen àq la te duma fayal kenn àq ku ne sa àq yaay seet boo ko mënee baale nga baale ko boo ko mënul baalu nga fayu mais nee na nag am na lu dàq fayonte mooy féeteeg man bu ngeen ko gëmee ma ne in sabartum lahu wa xeer waaw loolu mooy li nga xam ni moo ci nekk dafa am loo xam ni wallahi wal quraan il azim amuñu jota te itam mbir boo ko seetloo ba gis ni c'est une organisation mais pas une parfaite organisation parce que mise en scène la remue-ménage la ak ya ca mais nag dafa am lu wolof yi wax dañu wax ni bu la nit nee nañu xaritoo nga tëdd ba guddi sàcc ñëw sa kër nga yuuxu ko mu daw nga dog tànkam topp ko mu tëri sa kër xarit ci ëllëg sa sàcc defaat ko nga topp ko mu tëri sa kër xarit ba muy ñetti yoon waxtaanal ak sa xarit mu wutle la sa sàcc bu ko gàntalee jàppal ni mooy sa ndeyi sàcc moo ko ngemb jàppal ni la preuve du contraire mu mel ni nag ànd mën nañu ko parce que Serigne Babacar si moo nu jàngaloon nu nuy àndeek nit def nu waxoon ni ku leen ni ñu seq kóllëre def leen ci lu mu mënul waaye bu mu leen njëkk a saaga ndey dégg parce que wolof yi dañu wax ni bala nga ma naan nangam ma ni la nangam waaw kooku noonu rek la demee. wa euh, euh, bu ñu ko waxee euh, dañu bëgg lépp leer waaw te itam dañu wax ni la confiance n'exclut pas le contrôle et pour mieux vivre une parfaite harmonie une parfaite harmonie il faut quand même que les cordes s'accordent foofu rek la yem tey waaw lu ci war a leer leneen dinañ ko leeral ci seen kanam mu mel ni nag eh, kilifa gi lenn rek lañ koy fàttali la yàlla waxoon yonent bi ni ko comme tànn nga te li nga tànn coonoo koy maye ak risque parce que yàlla ne na ku amul le goût du risque yow waaw il faut avoir le goût du xam nga nit yàlla yi ñan ñoo ci gën a néew cër nit yàlla yi ñu ci gën a néew cër mooy ñi beru ci seen ruq yor kurus di ñaan yàlla xam nga ñu ci ëpp cër mooy ñi am audace fekk yàlla fa mu nekk ñu nuyoo mu yeex a ubbil ñu éclaté cadre bunt ba parce que seen chaise nga ci biir ah, am na ku dul yalwaan mukk yow lay seet ba xam ni diiñ nga rek mu defal la lim lay defal ah, mu mel ni eh, am na loo xam ni dinañ ko jombale suñu bopp gis nga sunu nijaay jii toog Kabibel Diouf maître Kabibel Diouf nijaay la ci ñun parce que maam Ismaïla Diouf nijaayu soxna asukar la donc moom suñu nijaay la maam maam juuf Diouf dafa daan wax ni nee na gor yàlla mën na ko teral mu teddadil boppam ñu ni ko nu muy teddadile boppam mu ni mooy mu dem fu ñu ko jébbee nee na gor warul dem fu ñu ko jëppe parce que yàlla éviter na la ko waaw loolu mooy li nga xam ni moo ci nekk Serigne Babacar Sy daf ñu daan wax ni doom bu ngeen jàngee daara te jàngu leen wolof du ngeen dégg daara bu tabaski masaan ñëw pour mu war a xëy rend ji xaru tabaski da ni mu diise ci moom muy wax ni dafa am lu dagan te metti am lu dagan te diis Sëriñ Babacar Si moo ko wax mu ni li dagan te metti mooy rendi xar mi yàlla la ko xéewalee kenn warantewu ko mais nga war ko tiim rendi ko sëriñ Babacar Si ne amal ker sa bopp bëtam bañ a tege ci paaka bi parce ci ak yiwu la bokk waaye yàlla wërsëgale la xar ngay xaas xaasi paaka di daas muy mem ci sa kanam ngay waaxu defe ni yaa mën ci góori àdduna yi nee boobu du ak càng nee na kon xàmmee li daggante metti farata la mu ni li dagante tiis mooy passé ànd ak nit ba mu yàgg ngeen tàqali ko mu ni man Babacar ku ma àndal jéggal la c'est parce que nee jikko moo dëppoowul ak dignité tariqa bi waaw Sëriñ Babacar Si nee na ku ma àndal jéggal la nee na fekk na ma seet sa jikko ba xam ni yiwati gi dëppoowul ak tariqa sayid Cheikh Ahmed Tijani pour wan leen ni jàngal nañ nu diine jàngal nañ nu wolof bi ci des mooy euh, wasbir wa ma sabruka illa billah loolu la yàlla waxoon yonent bi ni ko yaa tànn foog nga muñ li nga tànn lan la mooy li gën mu ni ko ndax dootoo dund dund gu ànd ak noflaay mu ni ko coono rek mu ni ko coono nag warul décourager kenn parce que mooy jommu góor cholo moy jomu gor lol la ko yàlla wax wa ma sabruka illa billah waye nak wala taxsan am waaw ni ko buñu la taxa panike ni ko buñu la taxa panike sen mise en scène yi ni def sen remue-ménage yi ni def sen gaminerie yi ni def bo ci gëdd mu daw kon fasbir wa ma sabruka illa billah waaye yeewit fasbir wa ma sabruka illa bi sabri nabiyil mustafa wa ma sabruka illa bi sabri alladhina haula alladina jabahu mujabahat al ahqaf amul koo fi tolloon ci kër jëmb kilifa gu ne ñëw na fekk nu fi mais ba nga ñëwee itam danga ne dara indiwu la ñëwuloo pour déglu si waxtaan waaye danga ñëw pour laaye biir nit ñi pour wax leen kan mooy Serigne Cheikh parce que du wax boppam kenn ba nga koy wax sa sago nga àndal ba nga koy wax kenn sexalu la suukar kenn woowu la nit la mu wax ba mu meragul mooy dëgg waaye bu xasee ba mer moo ko rab yee li ci des nag mooy bu la neexee bu ñu neexoon waxtu wu ñu ne nga defal nu nga defal nu waxtaan nga defal nu ko mais bu la neexee nga seetlu nu dem ci sa waaw sëriñ Abdou Lahad yal yàlla yokk leeram bu ma fa masaan yónni moom sëriñ Cheikh ba mu wan ma mag ñi ma war a nuyool ma nuyoog ñoom mu xëcc buntu bi te ni ma mu ana mu mu nga ci xam rek ma ni ko waaw mu ni ma jàpp njàmburam rek ma ni ko waaw mu ni ma bu doon tax mucc day mu mucc mu ni ma waaye réew mi doom kenn du fi mucc yaay xam li ngay bëgg rek mu jaral la ko waaye kon ma wax la nit ñi nga am say wëllërey bopp ak tariqa bu ñu mën a bopp say doomi bopp ñi ngi toog waa kër sëriñ Cheikh Mbacke Chérif ak Qara surtout yonent bi la wax naa sëriñ Moustapha Barki dem bi may defal compte rendu bi mu demee ca bëccëgu sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ba ma ni ko xamuloo ni murit yépp suñu mbokk la no ma ni ko mais Serigne Cheikh Mbacke Serigne Babacar si mooy parrain ndax sëñ Modou Moustapha Mbacke moo ko yóbbu ba Tiwaawoon séddee ko sëñ Babacar sëñ Modou Moustapha Mbacke tournée bi mu mujj def wuy ji boroomam tournée ba ba mu koy def moog sëñ Cheikh Mbacke ñoo ànd ba mu ñëwee ba Tiwaawoon mu ànd ak Serigne Cheikh Mbacke ñu gisee ak Serigne Babacar Sy sëñ Babacar Sy sëñ Modou Moustapha Mbacke ni sëñ Cheikh Mbacke gis nga boo ma gisatul kii mooy sa baay ba faw moo tax bi sëñ Modou Moustapha Mbacke demee ca boroomam tournée bi sëñ Cheikh mbakke njëkk ba mu ñëwee Tivaouane dafa renouveler loola ñëw ci sëñ Babacar Sy dindi 3000 francs ca jamono yooyu ni ko sama guro baay pour won leen ni kii fi mu teg tànkam xam na ko waaw fi mu teg tànkam xam na ko waaw eh, ba tax na fa tabarakallahu ay éclaircissement la yu ñu leen bëggoon a jox éclaircissement yi nanu médiatiser àdduna bi yépp du sax parce que lanuy wër bu la wóoree ni ci nga boof mais sonnal sa bopp te itam ma fàttali sëriñ Muniru la mu daan wax li bokk ci coow li xam li xew a ko gën xam li xew moo gën gis nga kii bala ngeen doon xam lu mu toll adduna yëpp woon ko gannaaw sëñ Babacar si rek la soxla soxlawul keneen euh, sëñ Babacar si daf ko daan wax daf daan wax ni euh, seen maam euh, na ñëpp dem bàyyi maag Maodo ma def leen ci lenn ngemb mu ne waaye bu ma àndee yéen ñépp te Maodo woon ma gannaaw euh, du ma du ma mën daal sëriñ Babacar Sy la daan wax kon nag li nga xam ni moo xew euh, am na lu euh, am na loo xam ni wallahi wal xuraani laa dof rekk koy feetu ah, wallahi parce dof ba ba ñu ko fekkee mu toog ñu ne ko sa baay dee na mbub mi nga ci donn te mësul am mbubb mu pàkkar ci ah, parce que dof la ah, yëgul ni baay bee dee mbub mu bees mi la gis mais Serigne Cheikh bu ko keneen ku sant si séddoon ku dul Cheikh al Xalifa wallahi wal quraanil aziim tuuma topp ko ah, Serigne Babacar si rekk ko mën a sédd bu ko keneen séddoon ku sant si walla ku sant ay dara walla ku sant taal rekk tuuma topp ko parce que foog ñu jaaxal foog ñu laaj lu mu def yàlla ba yàlla nattoo ko ni keneen ku ñu sédd nag te ku sant si sédd la c'est parce que réeroo mësul am seen diggante mooy li sëñ Babacar Si daan wax yëg naa ni bu sama secret génnee diwa ko génne parce que du réeroo bàyyi ñu ndaw yi Serigne Babacar Sy laa wax pour wan leen ni xam nañu li nuy def moom nag bu ko neexee mën na absenté junni at ñu di ko xaar rek parce que keneen mënunoo boot waaw junni at laa wax mu nekk ci ruqam waaw keneen mënunoo boot euh, gis nga dafa am lu ko mag ñi ci biir kër gi daan jame moom Serigne Cheikh te fu ko mag ñi jame balay am une semaine yàlla yëkkati ko mu yey mag ñi dañuy toog Tiwaawan ba mu yàgg dans les années quarante quelque mu ni dafay wut téléphone keroog boo duggee ci kër gi dangay ngay ni dëj moo fa am ndax mat ñi wër Serigne Babacar Sy ni nu doon jooye pour wax ni telefon warul sone ci kër Maodo mag ñi seen gis-gis di ko jooy ñi mën a déy Serigne Babacar di ko déy ñi mën a waxtaan fële di waxtaan ñu ni téléphone du sone ci kër gi mukk góor gi nen ne mbay góor gi nen ne mbay bu caaw ba mu déggee ni Serigne Cheikh dafa bëgg wut téléphone maam naa ma xam na ko parce que ànd nañu ba tàyyi dem këram nekk xale yu tuuti di sol góor gi nen na ba mu yëgee ni Serigne Cheikh dafa bëgg wut téléphone mais moo dem ci magasin dafa yoroon magasin boo xam ni lu nekk nga ci lampe torche bu cinq pile la daan yor ci bëccëg bi ndax poussière ak lënd mu dem di fa jeex benn appareil ba génne ko ñëw ni sëñ Cheikh dama dégg ni da bëgg a wut téléphone sëñ Cheikh ni ko waaw mu ne ko appareil bi ngay njëkk a monté maa la koy jox maa la ko dimbale malgré li mag ñiy wax mais sëñ Cheikh def téléphone ba ñu teg ci quatre téléphone bi ni kar sëñ Cheikh décroché ñu ni sëriñ Fallou moo soxla sëriñ Babacar si ci téléphone sëriñ Babacar gëdd ci bëccëg bi rek solul mbubb sax turki dara rek la sol ak éventail traversé ëtt bi ñëw ci néeg sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh ni ko toogal ci kaw lal bis ku bari woon euh, euh, teggin la moom sëriñ Babacar sëriñ Cheikh ni ko toogal ci lal bi mu ni ko ëpp naa def ndax Maodo xëcc chaise toog ci sëñ Cheikh ni ko sama papa Falilu Mbàkke nee na mi ngi lay nuyu sëñ Babacar Si ni ko jottali ko ni ko yàlla na ko yàlla fay yiw mu ni ko sama papa Alaaji Falilu nee na mi ngi laaj jàmmi njabootam njabooti boppam yi ci biir kër gi sëñ Babacar Si ni ko nee ko ñépp a ngi sant yàlla tabarakallahu manit maa ngi laaj jàmmi sama njaboot ya nekk ca moom ñu wax seen soxla ba noppi sëriñ Cheikh raccroché sëñ Babacar si jógu toog ba mu yàgg mu ne ah lii de waay bu fi amul woon fawwu ay ndaw jóg waaw ah, fawwu ay ndaw jóg mu ñu ko doom xamuloo ni bari na lu la mag ñi di critiquer mu ni ko bu sa maam fekke woon jamono yi ngeen am yépp moo leen koy njëkk am ndax dafa civilisé woon waaw dafa civilisé woon pour wan la ni yàlla bu la dee yeyal mais soxlawul fu ne nga taxaw fa nag waaw fu ne nga taxaw fa di tëlëlëli jaru ko waaw te gis nga pour defe ni mbir mën na xew ñu def ci ñun pression bu tax ñu réyagir te jotu kenn mënu ko am bu laajee ñu tontu fekk juróomi at fekk juróomi at la ñuy tontu bu laajee ñu tontu fekk bu laajee ñu tontu fekk ñaar fukki at ak juróom fekk ñaar fukki at juróom la tontu. ma bëgg leen wax ni dëgg pexe du ko samp calcul du ko samp yàlla du ko samp yàlla koy samp gis nga dëgg ko samp calcul du ko samp koy samp gis nga dëgg soutien du ko saxal yàlla moo koy saxal ndax yow mi ni da ngay